am nañu yaakaar dugg ci ak jàmm génn ci ak jàmm waaw pare nañu parce que euh, dès l'instant que nii ñu ngi ci rek gëm nañ ne pare nañu. mën nañu ne ci dëgg dëgg dëgg bi ñu état joxee lim ñu jox on tikkee woon nañu parce que nee woon nañu du mës a commencé parce que état bu fekkee benn boo xoolee ci codec bii rek on on a j'ai huit école état jox ma quatre thermoflash kon loolu mu ngi sous-entendre entendre que ni yeneen école du ñu am thermoflash fexe na ba am les thermoflash nécessaire fexe na ba am lee lavoire am na savon am na et tout parents yi li ñuy wax rek mooy nañu sensibiliser xale yi nañu dalal seen xel xam na yàlla rek moo fi nekk ñu ñaan yàlla année bi ñu commencé ko ci jàmm terminer ko en beauté waaw loolu nag pour mu am il faut ñu veiller ci mesure d'hygiène yi mesure d'hygiène yi foog ñu veiller ci ni ñu ciy veiller mooy xale yi ñun xam nañ nañ la ñuy waxee ñoom ba ñu respecter les mesures barrières mais nag dem beeg dikk bi jàngalekat bi ci école bi rek la yem parents yi tamit il faut ñu wax ak xale yi ba nga xam ne nañ mën a dem ci jàmm teg ko ci yoon wàññeekuwaat ci jàmm. masque yi bu ñu ñëwee nañ leen wax dañu koy dindi bu ñu koy dindi ñu jël languette yi nii dindi seen masque bu ñu paree ñu fóot seen masque ba mu set. heureusement que ni ku ne di nga am au moins de lu mu bon bon di nga am ñaari masque nga nga koy échangeante donc di veiller à l'hygiène et la propreté. xam ngeen ne njàng mi dafa war a dooraat suba incha allah le 2 te contexte bi ñuy dund jamono bi ñu nekk nekk jamono feebar nekk jamono Covid 19 bi nga xamante ne ñëpp a ngi koy coow xam nañ li xew xale yi mënuñu dem jàngi noonu saa ñu am ay matuwaay sans ñu am kaaraange euh, muy xale yi muy jàngalekat yi. ci matuwaay yooyu nag pour kaaraange gi bi am ñun commune bi dañoo dégagé woon enveloppe boo xamante ne jéggi na 2 millions ci enveloppe boobu ñu mën ci lim lu tolloog junni masque mën ci lim lu tolloog euh, téeméeri bouteille ak ñaar fukk yoo xamante ne ci gel hydroalcoolique yi la mën ci lim aussi lu mat euh, téeméeri bouteille ak juróom ñett fukk ci ay ay ay javel noonu lañ ko defee ci saabu gi mais noonu lañ ko defee aussi ci raxasukaay yi ngeen gis ni ay raxasukaay yu mag yoo xam ne lycée ak CM yi ñoo tax ñu jóg. Euh, noonu la ñu defee aussi semaine passée euh, li nga xamante ne mooy opération setal école yi ànd ci ak waa service d'hygiène ah jox leen essence waaye jàppale leen ci ay produits ba nga xamante ne raxas nañ école yëpp setal nañ école yëpp ba fi ñu toll nii macha allah yaakaar nañ ne à partir de demain ñëpp mën nañu dem jàngi euh, en toute tranquillité yemul ci joxe matériel kese xam ngeen ne ci suñu zone yi ñaare xale yi bu ñu jógee école rek dañuy daal di am lu ñuy dem def ci biir kër ga wala sax ci biti kër ga ba tax na tuuti relâchement dafay am relâchement boobu nag pour ñu gaaw a branché waat léegi léegi daañu def ay waxtaan à travers la rajo communautaire mais def ay waxtaan aussi ci ci ci dëkk bi ci grand place yi waxtaan ak parents yi xamal leen ne leen ne xale yi war nañu delluwaat école ci nu mu gën a gaawee waaye euh, dañu war a def examen foog seen xel yi delluwaat ci njàng mi ñu mën a dabbu li nga xamante ne moo desandigum fii ak examen yi loolu ñu ngi ciy def jéego yu bëri dañu am ay xale yoo xamante ne seen i parents ñi ngi ndakaaru diggante bi ñu tëjee école ak bi ñuy déclenché couvre feu euh, pour des raisons sécuritaires ku nekk da nga wosal njaboot ñii dallu ndakaaru seeti nekk ci ay parents mais am na ñu nekkoon ndakaar aussi ñëw mu ñaan parce que parent yi yaa ngi fii léegi ñooñu nag foog ñu dellu te problème autorisation la ñuy am autorité yi yaakaar nañ ne dinañ ko yombal bu ko defee xale yi mën a dellu jàngi tranquillement